salaamaaleykum sama ay mbokk salaamaaleykum samay dëkkandoo tey jii fii ma ñëw dama kontaan ndax maa ngi ànd ak sama frère Mouhamed Diallo nga xam ne jàmbaar la xam nga àndandoo dafa neex ndax lu kenn mën ñaare ko ko dàq te du bëri mbir ki démb toog naa di def proximité. depuis dem fii ci ginnaaw onkaat ñu ne ma wu fee wax dara ndax loo fi waroon a wax sa rakk wax na ko ba pare mooy Mouhamed Diallo ma ne kon nag dootuma yàggal maa ngi dem ndax mbir mi sotti ci ak def ci la président Macky Sall la ñuy jàppale kontaan fekk si fii sama rakk sama jarbaat di jigéen joo xamante ne moo mën góor muy Wouly Faye mii wuli am na jom ndey wuli du kaas ndey wuli doo dégg kàmbalam doo xam lu mu bëgg ak lu mu bañ te kenn du ko ci tey ko ci terrain bi ndax pas-pasam ak liggéeyam maa ngi leen koy seede waaye damaa ñëw suma kër yaay ba mu koy wax xam naa ñu bare dañu defe ne waxu politique la defe ne kii sama yaay la déedéet kii sama yaay la ndaxte sergent Diop baayam ma jow Diop baayam ñooñu ñoo yor sama baay ñooy sama papa ñooy sama maam ñooy sama grand ci biir Thiès. maa ngi nuyu itam suñu xarit suñu rakk bi nga xamante ne suñu nelawee fii moom mi moo tax muy Ousseynou Johnson mii nga xam moo tax di nuyu Issa li nga xamante ne mooy responsable des jeunes de la zone ouest ànd ak ñun di liggéey ci liggéey di leen wax nag lu gàtt fii dañ fi jaar nu ñoo teg yéen waaye gëjuñu fi di saafoon teg yéen waaye soxlawul lool ndax ñun xam nañ ne ànd ngeen ñun ba pare xam ngeen ne jàpp ngeen ni ba pare waaye teewul dañ fiy jaar bu féddali kóllëre président Macky Sall la ñuy jàppale jàppale ko mu defar Thiès jàppale ko mu defar Sénégal.

yooyu yëpp président mu ko indi defal ko fii ci Sénégal te du jeex wàññi ceeb bi indi wàññi diwlin gi wàññi te euh, wàññi luwaas yi maanaam kuy lim mbir président li mu fi def ci social doo fi jóge dafa ñu ne dig naa leen ci lu gàtt dinañ defaraat chemin de fer bi defaraat ko ba mu baax fii ba nga xamante ne moom mooy Kidira dañ koy delluwaat bu bees pour waaye yem fa nee na dina indiwaat beneen train boo xamante ne train à grand mel ni train yi nekk mu dem ba Tamba loolu lépp président Macky Sall nee na dina ko def su ko defee dafa dekkiliwaat Thiès ngi gàttal wax ci ndax dañoo war a nuyoowaat ci biir koñ bi saafanteeg waa koñ bi xam naa ne fii moom daa mokk ba pare moo tax ma ñëw fa waaye fi ñu fi soxlaa fi ñu fi ñu soxla gën koo mokkal feneen la waaye fii moom. tubaab bi ala xale yi di wax fii ñoo ko moom. waaye lu mu gàtt gàtt daal ñu ngi bëgg ñu ñaanal ñu ndax saa yi ñu ko defalee. yàlla def nañu bëgg bëgg ñu am na. Thiès nag ñun dañoo leen xàmme. mënuñu nit ñoo xamante ne su campagne jotee ñu gis leen su campagne paree ñu su fekkee nag ñun ñi nga xamante ne ñu ci dëkk bi amuñu xam-xam amuñu xalaat mënuñoo def lenn lu wax seen bopp ñu ko wax ñun noonu ñu war a demee su paree mu dellu fu mu newoon ñu ko caa ñu suñu mën a taxaw ñun war nañoo doon téye suñu dëkk war nañu doon defar ndax ba ñuy jàng jàng ko ci ñoom gënu ñu jàng kon ñun war nañoo mën a ñu ñu defaree président Macky Sall kon ñu jàppale ko ñu defar Thiès président am na ambition yu bari te bëgg dem nee na woon su doon sama bopp caisse la la capitale économique du Sénégal loolu rek ñu ñoo ko ci war a jàppale. loolu xëy na